maada yafsara min alquran maanaam lu ngeen mën a jàpp lu jàpp ne ci yéen rek ci ci yi ngeen mën koo jàng ci biir julli rek mën ngeen sax da euh, téeméeri laa yàlla baax na bu dee ñaar fukki laa yàlla baax na ah. li am la mooy way way xiyaamu layl nag moom daa bokk ci li gën a garaaw ci mbiram mooy mooy mooy way ci moo yombul xamoon nag lu ci nekk man damaa xamul ba xam boo defee bàkkaar ci bëccëg yi da koy fayeeku ci guddi nga xamunum demee noonu waaye moom soo ko tàmbalee mu yegg moo dul waaw tàmbali lu baax mu yegg moom yombut rawatina tàmbali xiyaamu layli salaatu la mas naa am benn bis kenn ci saxaaba yi tëdd nelaw muy Abdullah ibn Omar daal di gént ak gént ñoom bu ñu masaane bu ñu xëyee dañu ko nekk salaatu la pour mu ne mu mu mu firi leen ko daa gént ñaari malaaka jàpp ci loxo bi di ko yóbbu sawara Abdullah ibn Omar nee na dem nañ ba ba ba ma gis sawara maanaam na mu xóote waaye ma jekk-jekk si yeneen ñaari malaaka yi daal ne Eh, yéen ñi nga xamne itam man ngeen mokal mokkal tam gor gor leen mokal ko am nañu ko mëna mokal di waye mom dañ wax dara man barki dembu bi ma gisee suñ bo bi nung tuddu way mu dem ko suñ am di jóob Basiru la tuddu géey koku day mom yalla nako yalla sammu manam mom dana jek jek won nit ñi lo xamne si lu loolu da xamna naa ko tàggat wax daa laa yaakaar moom daa am du du sonu mom <laughs> mom lool gis nga liggey mom bu ko jël dëgg do ko do ko man de na ah, ndax fi doon da nga nan xana day ci ap dërëm la ci jëlee xana xana da am lu ko ci jox waye man man da ngay est ce que du def ah manam ñu mel non yalla ci boppam la gis ne mom mo leen di lo xet liggey yoy mu dem kër sëñ Amdi Jóob muuma ya fa muuma ya nekk maanaam xalqa muuma man de sëñ keroog maanaam dama daal lii te waaye suñ borom yàlla moom itam ay muuma duñ dégg duñ dégg dégg duñ ko def mënuñoo wax itam waaye am na keneen ku ku am ndimbal am na keneen ko am ndimbal ci biir vidéo boobu mooy ka jënd lan. ka jënd Aliou ya kooku itam xamu kum doon waaye ku am ndimbale ngi noonu moom tam <laughs> yàlla moom tam gis nga ak mën nit waaw moo moo moo moo jënd Aliou ya moom toog jàpp njàmbaram moom ah am ku ku tabax ah, am na ah, daa war a am ku tabax daara ja waaw daa daa war am ku tabax jëmmi daara ji moom. man de xam naa ne bëgg naa faa dem waaye daal da da damaa xawut a attan maanaam dugg fa <laughs> moom yooyu man dama xawut a attan dugg ñu ñu ne ñii ñii ñoo ma ko yàlla xam naa rek sëñ Basiir na ko def moom moom ma di ko xool doon daal dugg fa daal moom sëñ bi ñoom nañ ndimbalu laa wax mënta wax mënta dégg mokkal alxuraan yow nga mën a wax mën a dégg ah ah est ce que doo dem ci kanam yàlla mu la koy laaj naa la sa nopp yi ma la joxoon noonu ak sa lam yi ma la joxoon ak sa xel mi noonu loo ci def loolu ko yàlla laaj doom la wax de dem leen jàngi alquran mooy ka ma waxoon naan ma dama bëgg ñu séq ay taraanga ma ne ko ah séqi taraanga ok yàlla laa ko séqal sëriñ bi illa waa xam naa lu baax la si jub nag xam naa lu baax la si jub waaye daa rëy man man waa joo bi ma ko waxee ba li ma ñibbi si kër gi rek sama xel mi ngi ci man lee séqi man taraanga ko yàlla ba mu séqi ma ne taraanga ba ma ba ma juddoo gud law ta séqoo nag ma ne wax ba léegi nii ba may ba ni may faatoo teraanga teraanga yi damay topp ba ni sama baax sama bàmmeel damay topp ba ca maanaam bu ñu may sang sax ay teraanga la mënu mañ ma sànni ci àll ba mu sang ma du sang comme mi ma daan sang bu may kii de ni ma daan sangoo ci woon déedéet dafa am sang buñ may sang boo xam ne moo ko jàngale ba mu yàlla bu noppee teg ma ci maanaa ak jaar sëriñ bi maanaa ñëw teg ma maanaa ñu may jullee jullee goo xam ne moo ko santaane bu noppee yóbbu ma ci am pax pax mu ñuy tuddee lax bi sa lax ba lax ba la noonu dugal loo dugal lépp mooma ah xoolal yooyu teraanga xanaa yàlla nga seqali teraanga xanaa ko seqali teraanga rek wax dëgg yàlla waroo ko fàtte ci àddina diw mi li ma ji ci ay teraanga olof na olof da ngay wax naan ni li ma ji ci teraanga yow fàtte ana yàlla sa borom ana ci yéen ko amuti bañ ku mu doon bañ yi doo nga teraanga la di ak ni mu ko liggéeyee am yoo xam ne moom daa aaja maanaam boo tàmbalee ba waaw yoo xam ne ca liggéey ñoo lépp yaa koy jëfee ko suba ngoon borom bi ne ne wala allakum tashkuruuna ndax ngeen ko julli yi ñaari saar yi ba saar yi ba ñeenti saari yi tàmbalee ko ci qul yaa al kaafiruuna ak qul wallaahu ahad ak fallaxi ak naas man de bu ma amee sañ-sañ ci dénk ko nit ñi maa ngi leen koy dénk yàlla xam na ko ñun day dañoo am gànjar goo xam ne foo takk rëyaay bi man a wees na ko muy alxuraanul karim kii yàlla mi amul kumba xam na ne yiw àddina ak yiw àllaaxira la ko yàlla def yàlla xam na ko lépp luy lu baax yàlla nga ko def fii lépp loo xam ne lu baax la fii la ko yàlla def kii boo ko téye ak sa fukki loxo yaa ngi ci ak njub fastamsik billadi uxiya ilayka innaka ala sirati mustaqim kii nuur la wa anzalna ilaykum nuuram mubina kii ruux la wa kadalika awxayna ilayka روحا من امرنا كي انجبلا وانه لهدى ورحمه كي سافر له سبحان الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين كي كي املوي بك كي نغور بك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كي ابرم كدلا يلا خمنا يونتبي صلى الله عليه وسلم ما وخني دايرا مو يوم القيامه مو القران مي القران شافع مشفع لوح سبحان الله لا اله الا الله yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena alquran day ram ta am ram mom di suko ko delloo kenn du ko delloo ëllëg yowmal qiyam alquran day ram ñoñam yalla ci yalla boole yalla na nu boole ci wa alquran yalla na nu boole ci wa alquran subhanallah yalla na Yalla yàlla boole ci wa alquran yalla na nu yàlla boole ci wa alquran yalla nañ doon niti alquran deug deug deug yàlla nañ doon ay niti alxuraan dëgg dëgg dëgg yàlla nañu yàlla musal ba ba duñ teqali koog alxuraan yàlla nañu yàlla musal ci teqali koog alxuraanul karim yàlla na yàlla sama borom dimbale nu ba bu ni faatu yóbbaale ko yàlla na yàlla dimbale ba alxuraan doon leer ci sunu biir yi bàmmeel yàlla na yàlla dimbale ba ëllëg yowmal xiyaam baqara ak aali imran ànd ak nun ba ca kanam yàlla subhanahu wa ñaari saar ba ñetti saar yi ba ñeenti saar yi tàmbalee ko ci xul yàlla kaafiruna ak qul wallaahu waxaat ak fallaxi ak naas yi man de bu ma amee sañ-sañ ci dénk ko nit ñi maa ngi leen koy dénk yàlla xam na ñun day dañoo am gànjar goo xam ne foo takk rëyaay bi man a na ko muy alxuraanul karim kii yàlla mi amul kumba xam na ne yiw àddina ak yiw àllaaxira ci la ko yàlla def yàlla xam na ko lépp luy lu bax yàlla ngi ko def fi lépp lo xamne lu bax la fi la ko yàlla def ki boko te ak sa fukki loxo yanki ak ndub fastam sik fastamsik billadi ilayka innaka ala sirati mustaqim ki nur la wa anzalna ilaykum nuram mubina ki ruh la wa kadhalika awxayna ilayka ruham min amrina ki ak ndub la وإنه innahu la huda كي سافر له سبحان الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كي كي أملوي بك كي نغير بك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كي أبرم كدلا يا الله حمدك يونت بي صلى الله عليه وسلم ما وخنا دايرم الله يوم القيامه القران مي القرآن شافع مشفع له سبحان الله <coughs> لا إله إلا الله yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alxuraan day ram te am ram moom di su ko delloo kenn du ko delloo ëllëg yowmal xiyaam alxuraan day ramu ñoñam yàlla ci yàlla boole yàlla na nu yàlla boole ci waa alxuraan yàlla na nu yàlla boole ci waa alxuraan subhanallah yàlla na nu yàlla boole ci waa alxuraan yàlla na nu yàlla boole ci waa alxuraan yàlla nañ doon niti alxuraan dëgg dëgg dëgg. yàlla nañ doon ay niti alxuraan dëgg dëgg dëgg yàlla na nu yàlla musal bay ba duñ teqali koog alxuraan yàlla na yàlla musal ci teqali koog alxuraanul karim yàlla na yàlla sama dimbale nu ba bu ni faatu yóbbaale ko yàlla yàlla dimbale ba alxuraan doon leer ci sunu biir yi bàmmeel yàlla na yàlla dimbale ba ëllëg yowmal xiyaam baqara ak aali imraan ànd ak noonu ba ca kanam yàlla. mooy dama waxoon naan ma damaa bëgg ñu séq ay séqi teraanga ok yàlla laa ko seqal sëriñ bi <laughs> illa waa joo xam naa lu baax la si jub nag moom xam naa lu baax la si jub waaye daa ko waxee ba ni ma ñibbi si kër gi rek sama xel <laughs> mi ngi ci man lee seqi man teraanga ba ma juddoogul laa wax ba léegi nii ba ni may ba ni may faatoo teraanga teraanga yi ba sama baax sama bàmmeel damay topp ba ca la mën nañ ma sànni ci àll ba maanaa ni ñu koy defee xareeg bëy waaye mu santaane ñu war maa sang ñu may sang sang ma du sang comme mi ma daan sang bu may bu may kii de ni ma daan sangoo coon déedéet dafa am sang buñ may sang boo xam ne moo ko jàngale ba mu yàlla buñ noppee teg ma ci maanaa ak jaar sëriñ bi maana ñëw teg ma maana ñu may jullee jullee goo xam ne moo ko santaane buñ noppee yóbbu ma ci am pax pax mu ñuy tuddee laxd sa laxd laxd laxd it moo ko jàngale waaw ah, ñu ñu la noonu dugal loolu dugal ah, lépp mooma ah xoolal yooyu taraaga xanaa yàlla nga seqali taraaga xana ya ko sekkale teraanga rek wax yàlla do ko fàtte ci adina diw mi limu jiji ay teraanga olof na olof da ngay wax naan ni limu jiji ji yow fàtte ana yàlla ya, sa borom ana ci yeen ko amuti bañ kum doon bañ yi do nga teraanga la di ak nim ko liggey nga xamne ci ya, am yo xam mom da aaja mana bo tambale fi te mënu ko ki nga yóbbu ko ñu yóbbu ko fële ñoo ñoo agal àggale liggéey ba ah. waaw yo yoo ja dege ñoo koy àggale lepp yang koy jëfé ko suba ngon borom bi nee na wala allakum tashkuruna ndax ngeen sant Thank you yen ñi nga xamne itam man ngeen mokal mokkal tam gor gor leen mokal ko am nañu ko mëna mokal di waye mom dañ ci waxu dara man barki dembu bi gisé gisee suñ boo bi num tuddu way mu dem ko suñ am di job Basiru naan la tuddu géey koku day mom yalla nako yalla sam manam mom dana jek jek won nit ñi lo xamne si kamu moom da xam naa dañu ko tàggat xaw daa laa yaakaar moom daa am du sonn moom moom loolu gis nga liggéey boobu bu ko jël dégg du ko du ko man de ah fi mu da nga naan xanaa day ci ab dërëm la ci jëlee xanaa xanaa daa am luñ ko ci jox waaye man man da ngay est ce que sax du def ah maanaam ñu mel noonu yàlla ci boppam laa gis ne moom moo leen di liggéeyloo xeet liggéey yooyu mu dem kër sëñ am di muuma ya fa muuma ya nekk maanaam xalqa muuma man de suñuy keroog maanaa dama daal lii te waaye suñ borom yàlla moom itam ay muuma duñ dégg duñ dégg duñ ko def mënuñoo wax itam waaye am na keneen ko ko ku am ndimbal am na keneen ko am ndimbal ci biir vidéo boobu mooy ka jënd lan ka jënd Aliou Weye kooku itam xamu kum doon. waaye ku am ndimbale ngi noonu moom tam <laughs> yàlla moom tam gis nga ak nit waaw moom moom moom moo jënd Aliou moom toog toog jàpp njàmbaram moom ah waaw xanaa duñ am ku ku tabax daara ja nag ah am na ah daa war a am ku tabax daara ja tabax jëmmi daara ji moom. man de foofu xam naa ne bëgg naa fa dem waaye daal da da damaa xawut a attan maanaam dugg fa seen <laughs> mots yooyu man dama xawut a attan dugg fa ñu ñu ne ñii ñii ñoo ma ko la xaat te mënuñoo wax ñoom loolu wax dëgg yàlla na ko def nag moom moom ma di ko xool doon rek waaye daal dugg fa daal moom sëñ bi ah, ñoom nañ ndimbalu yàlla. muuma laa wax mënta wax mënta dégg mokkal alxuraan yow nga mën a wax mën a dégg ah est doo dem ci kanam yàlla mu la koy laaj naa na sa joxoon noonu ak sa lam yi joxoon ak sa xel mi noonu loo ci def <laughs> loolu ko yàlla laaj do am la wax